aussi itam maa ngi lay gërëm di sant. jërëjëf li ma invité ma ñëw sa plateau. naa dem plateau yu bëri mais plateau bi daf ma intéressé loolu ndax may mën a. Hmm. dama koy suivre lu bari bëri surtout avec les Cheikh Yérim Wota doyen bi toujours maa ngi koy suivre. Hmm. mais man actualité bi li ñu ci wax yëpp wax dëgg yàlla man <laughs> duma ci. sànni duma ci wax d'accord naa ci lépp parce que liberté d'opinion la mais li ma gën a amal solo mooy li nga mujj ak Zator partie de contribution. enquête moo ko wax journal enquête moo ko wax naa enquête moo ko wax mais su ko enquête waxee mu ëski fi ñu commenté ka ñun war nañoo indi tuuti leeral. pour pour qui connaît la vie politique de sa pays. durant ay période moo xam ne c'était la période dure de la clandestinité. waaw la période de la clandestinité. clandestinité waaye. Hmm. les périodes dures où rien n'était évident suñu waxee tey ne kat part de contribution ça nous fait mal. combien de nos camarades n'ont pas survécu à cette période. Hmm. combien se sont battus. ba li Sénégal gii mel nii mu mel fekkewuñu lii moo tax te bu tey jotee ñooñu part de contribution wax dëgg yàlla dama naan il me il méconnaissent totalement l'histoire ce pays là ce pays là une histoire et le PIT comme ni ma la wax ne prend jamais une décision à la légère jamais ne prend jamais une décision à la légère moo wax la fii ndam si yàlla si Ibrahima seen moo fi daan ñëw yàlla yàlla leer ay moom mu daan débat tey maa fi ñëw mais moo wax la ni ñun boo xoolee depuis Abdou juf avec les éléments sénégalais moo tan ñëpp rek bref on a participé au gouvernement Abdou Diouf lu ko motivé que le pays était fragile il la a la barbarie qui s'instaure il faut sauver la pays te boobu la Abdou Diouf était infréquentable ñëpp comme ils disent ils sont allés à la soupe. infréquentable. Ah. Macky boobu Abdoulaye Wade duggul woon ci gouvernement. ñoo tax mu dugg ci. en 91. ñoo tax mu dugg ci nous nous avons été les premiers à entrer au gouvernement. def de dialogue dialogue démocratique xam nga qu'est-ce qu'on il faut faire la politique autrement il faut faire la politique autrement le monde a changé et puis dans ce monde là il y certitude. il faut aller vers des solutions de large union civiliser les rapports loolu rek moo nu mën a permettre avec le régime en place qui est parti unique ñu mën a aller ndànk ndank transformer le pays mën am démocratie mais si on veut affronter verticalement le parti socialiste le pays va s'embraser. Mmh. loolu ngeen waxoon jamono waaw le parti socialiste était à l'écoute ils ont contacté notre direction def dialogue démocratique. dialogue démocratique lutte démocratique lutte d'opinion dialogue démocratique conscience démocratique gis nga ba mu woon ci Abdou Diouf ba bi Abdoulaye Wade jël ñu ñu ñu ñu ñu gën a renforcer cette politique d'alliance Abdoulaye Wade quand il quand il disait même c'est l'alternance a été théorisée par Sémou Paté Gueye et Amath Dansokho il a raison. boo xoolee même partout en Afrique avec les défis et qui s'expriment à vol exponentiel seule la politique d'alliance et de large rassemblement moo mën a sauver l'exemple de la Côte d'Ivoire est là là ñoom ñëpp maintenant il faut il faut se rassembler. c'est ça waaw ah, d'accord léegi. mais mais il faut connaître. il faut connaître vous les jeunes là parce que moom lay wax toujours boo xamulee démb doo xam sa toogaay tey. boo xamul si toogay tey ëllëg doo xam noo fay ñoo fay demee. dëgg la. dama koy wax parce que je suis lébu entre parenthèses j'écris de ma communauté damay wax xale yi ne leen da ngeen di ànd. ci micro mhm. da ngeen di ànd. ci xelam bàyyi wóoy ci xelu jamono. waxaata da ngeen di ànd ci xelam bàyyi. moom la Senghor di wax enregistrement et ouverture. Mhm. ànd si xelam bàyyi wala maam wëy si xelu jamono. d'accord. léegi kenn xamatul li xew démb. tey tey tey tey tey tey tey te démb y a une richesse extraordinaire sur le plan politique qui peut servir aujourd'hui à la jeunesse. waaw ah, d'accord ba tey. bi ab la demee ñu créé benn sugi Sénégal toujours cette politique là cette politique d'alliance là le pays déet avant Ablaye Wade itam kay ngeen créé Benno pour jëlee fi Ablaye Wade. waaw voilà. waaw mais mais on était dans dans dans le gouvernement Ablaye Wade. oui mais mais dafa leen fa daf nu génne daf nu génne trois leen ko fa. d' accord daf nu génne mais mais mais toujours pour logique avec avec nous-mêmes cette politique d' alliance là nous avons l'avons continué ba après ñëw ñoom ñu former Benno Siggil Sénégal donc ñun cette politique d' alliance là va durer tant que nos pays. sur le plan de de de de la vitalité de ces institutions ak suñu ay étape de maturation. d' accord Omar Diouf. <coughs> d' <coughs> waaye aussi. n'oubliez pas que <coughs> ñu ngi ci 2023. Ah. les partis de gauche. Ah. seen raison de vivre. waaw ah. dafa mel ni. jamono da ko weesu. la ñu daan xeex. dafa mel ni jamono da koo weesu. ay LD ay euh, ay jàllar bi ay euh, yooyu noonu dafa mel ni ñun ba ñu nekk ci deux mille vingt trois yéen ngeen nekk ci jamono yi xeex indépendance ba léegi parce que seeni discours san san san san san capte plus en réalité léegi le fait que ngeen nekk ci coalition ni doo leen ci jóge mais c'est c'est de bonne guerre c'est une c'est une bouée de sauvetage boo leen ci jàppul ci coalition bi yéen en yéen yéen a ngi waxtaan union union des partis de gauche rek déjà ñu ngi xool léegi léegi la coalition la notre participation dans la coalition au gouvernement xam nga quest que xam nga lu muy signifier même même même même même si nous avons une portion congrue ci la classe gouvernement bi notre participation participe participe à renforcer notre cohésion sociale ça participe à stabiliser le pays. Hmm. waaw parce que ça participe à stabiliser le pays. d'accord doyen. Euh, ah. doo ma bàyyi ak tamit euh, Diouf mu may rappeler ay histoire ah, hmm? ay jamonoy jamonoy clandestinité nga toog di ko seetaan tamit jàpp ci doyen da nga ciy jàpp parce que li ma la wax moom li ma la wax moom du dañ non non mën naa ko bañ a dindi mais doyen mën na ko ah, waaw da ko doyen dindi <laughs> la jàkkaarlool Diouf